tayi jàmbaar du mës a tayi lu mu metti metti moo ngi du mës asalaamaaleykum ami internet yu ñuy seetaan à travers El Vision Média comme ni ngeen ko safoo di wax saa su ne ngeen dellu si seen émission bi ngeen taamu muy 20 minutes avec 20 minutes avec nag namoon ngeen ko waaye moo leen raw tey nag ñu am benn gan koo xam ni présentation bi du yàgg mu ngi tudd monsieur Samba Diouf nek homme politique fi au niveau de Sicap Mbao jàmm gën dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ñu dalal ko ci 20 minutes avec monsieur Diouf nuyu naa la. maa ngi lay fay euh, soxna ci ñu leen bu baax di nuyu waa jàmm gën Sicap Mbao aussi di nuyu waa télévision média ci lu rafet lu ñu fi fekk ak innovation bi vraiment aussi li may wax mbégte bi ñu ci am doomu dëkk bi ñu gis ñu am xalaat bu rafetee nii.

gis ni tamit membre de la plateforme nationale pour la réduction des risques et catastrophes avec la production civile mm-hmm. nga nekk di euh, président ay mouvement créer ay programme yo xamné pour banlieue bi la mm-hmm. ñu bëggona xam tuuti buñ doon boo doon présenter wax kan moy Diouf Wa bon li ma mëna wax Abdou Samath Diouf c'est un citoyen sénégalais mm-hmm. du Sénégal que euh, Sénégal aussi particulièrement fii ci Diamaguène Sicap Mbao jàpp aussi li ñuy wax chaque individu a le devoir d'aider son pays d'une manière considérable mooy que ni doomu aadama ku nekk war nga mën a am taxawaay ci sa réew pour jàppale sa réew ba nga xam ne bu ëllëgee danañ la ràññee nga am fii woy bu rafet maanaam nga marqué sa empreinte dans l'histoire ñu gis ne ab réew ku ci nekk ci ñun rek am nga ca part de responsabilité pour la ko war a dem ci yóbbu ca kanam loolu moo wax taxaw ñun

si sa côté euh, gannaaw mouvement yi nga fi créé ak programme yi nga xamné yang koy tëmbal mm-hmm. lu ci melni ay banlieue set wecc mm-hmm. Sénégal ma fierté yooyu yëpp nekk ay affaire yo xamné yow ya ko initié yow initiateur bi mm-hmm. mais dama bëggoon xam sa entrée en politique da nga nek ci benn parti fan mos ko ou pas non man très sérieusement même la politique pour moi euh, c'est l'art de construire la cité man j'ai fait la politique mais j'ai fait la politique autrement euh, li ma dugal ci politique que la voix des sans voix mais je ci li ma gën di développement mais je gis ne suis réew mi ni muy doxee euh, ma gis ci politiciens dañ koy ne ma xam gëm je ci biir pas pour changer doxalin bi nga je ne

maa ngi ci ay mouvement associatif xalé la won mhm. di ci walu nawetaan. Mhm. di di di xam di gëstu. Mhm. mais comme man dama juddoo ci quartier bo xamné nit ñi bari bëriwuñu won doole. ma gis ci anam bañ daan doxale ci walu politique. mu nekk ma nekk nak un révolutionnaire. pour nga jog daal daal relever défi bi. relever défi bi. Uh-huh. fexe ba changement mën am ci li nga xamné mom la ci doxalee. Mm. donc lan loolu moma duggal ci politique. ci relevé défi bobu lay ñew ak yow mo waral création mouvement Sénégal ma fierté mm. en banlieue cette wetch mën nga ñu andil ñaari reeral. ci Sénégal ma fierté ak banlieue cette wetch wa donc man euh, avant banlieue cette wetch ak avant Sénégal ma fierté. Mm. dirigé woon naa yenen association. yo xamni ñu ngi nekk fii ci gox parce que en 2005 bi inondation amé ci dëkk bi. dama ne kat luy ramlate ci ñag bi la jënd te olof dafay wax ne lépp ñëpp lenn ku nekk mën ca mm-hmm. te mbir mi nekkuloon loo xam ne rek mbiru benn nit la woon mais dafa nekkoon benn phénomène national boo xam ne amul kenn koo xam ne épargné na ko woon muy inondation mm-hmm. comme ni ma la ko waxee sama njëlbeenu kàddu ma jàpp ne man mm-hmm. sénégalais laa ci réew mi laa bokk jullit laa su ma gisee ay doomu aadama di loru ndox di nangu seeni kër dafa laal suma xol ma jàpp ne tey man am naa ci taxawaay bu ma ci war a am ci la créé association taxawu askan bi pour lutter contre les inondations mm. en 2005 association boobu fan nga ko sës association boobu état bi nga ko sës wala sa yëfi bopp la wala dafa am ñoo ci àndal non non avec dama jël des jeunes de mon quartier mm-hmm. ñu def assemblée générale wan leen ne que ne tey li war a defar tey dëkk bi ñun jeunes dañ ci am. mais pour man nit ki boo defee lu baax. xam nga tey boo géeyee taxawu Sénégal ñëpp ci gis sa bopp. Mm. même man fu ma dëkkul jàmm gën si Kambaaw dëkk Géejawaay sax mm. buñ nee taxawu Sénégal war naa cee mën a gis sa bopp keneen comme ni nga ko waxee tantôt léegi nii. Mm. mais mais est-ce que. dem dem nga jéem ay relation ak état xam nga lépp loo gis nga di ko def. Mm-hmm. dafa am un mm-hmm. comme li ñuy wax da ngay béy ci sa réewu tànk. Mm-hmm. moo au mu que man may taxawal association taxaw askan bi à l'époque dama ko déparé fi nga fi ma dëkk ndax man bi may dugg ci inondation quartier bu ma dëkk moo inondé kër ya ma dëkk commencé inondé sama kër sax inondé wu toon fi ma dëkk mosul inondé mm. mais dama jàppoon rek ne que ci dëkk balaa dëkk su problème amee war naa am taxawaay

ci nga bokk ci laa bokk parce que le programme national, du ma apériste mm-hmm. le programme décennal pour la lutte contre les inondations mm-hmm. li ñuy wax réduction des risques et catastrophes mm-hmm. ci ñi koy ñi ko mool ci laa bokk séminaire yi état def le ministre de l'intérieur ak la direction de la protection civile man dama participer ci loolu presque depuis depuis depuis euh, deux mille euh, quatorze ba léegi maa ngi ci plateforme nationale bi la indi loolu mooy ràññee buñ ma ràññee ci engagement bu am. vers les Sahara, sa xarañante dal waaw donc machallah allah voilà donc ci engagement ci bëgg sama réew. di ko def d'une manière désintéressée. parce que damay wax ni ñun ndaw ñi ay ndaw lañu té suñu rew dafa am lu muy xaar ci ñun. té li suñu rew di xaar ci ñun moy am pas-pas. am taxaway pour bu ëllëgee. Sénégal nous changer parce que pour bâtir un pays il faut passer par la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui va construire le monde de demain et on ne peut pas bâtir un pays sans, sans passer par la jeunesse. Hein. Et nous, on est consciencieux de cela. Hum. montant tax ñu d'une jël responsabilité tel d'une jël engagement hum. pour nekk wax la voix des sans voix. la voix des sans voix bi. ok doguma la doguma la monsieur Diouf. Hum. gis nañ tamit ni nga conseiller président assemblée nationale Mamadou Seck. Euh, kon yow ba tey rek ci wàllu politique bi wéeru woo fenn. non wéeru naa parce que milité le PDS. Euh, bi may milité PDS. Si si walu inondation le président Mamadou Seck mm. dégg sama taxaway ak le maire de la ville à l'époque Daour Niang mm. gis li ma def taxaway bi ma am mm. ñu fexé ma ba duggal ma ci li nga xamné mo nekkon ci PDS au niveau de la commune mm-hmm. aussi au niveau du batay yaangi fa wala nekk wa non pour le moment nekkatuma tay ci politique ben parti nekkato ci ben parti wa lolu leral la buñu bëggoon rek ñu xam ko hein ah. effectivement wa lolu euh benen bi na dañuy dal dugg ci situation politique bi nga mm-hmm. xamanteni si mo nekk ci Kambaaw jamm gën bi mm-hmm. wax ji bari na problème yi bari na lepp lepp bari na wa lolu bala may egg ci lolu c'est-à-dire ci mouvement Sénégal ma fierté ak banlieue cette non parce que yow ya ko tepp motax dañuy delu ci sama ci may ci une

parti indépendant day am. léegi yow mouvement boobu ci nga sukkandiku noonu. waaw non man pour le moment pour ne yow da ngaa samp sa lënd fii ci jàmm gën si Kamba. mais bien sûr que oui parce que lu lu xam nga lu tax su fekkee ne anam bi nga xam ne yenn politiciens yi dañ koy doxee. Mhm. man gëmuma doxalin boobu noonu. Mhm. man je préfère ma jël sama wàll pàcc. Mhm. ñu ma bokk ngëm-ngëm. mu war ma ne ñun ñii ñoo bokk li ñuy ut parce que dañuy wax ne semence est regardée dans un même réseau. maak ñu ànd ba problème yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu ko jëlee. te c'est possible. parce que nous ñun bokkuñ ci benn parti politique nous sommes dans ay parti politique parce que nous sommes ñu un parti politique nous c'est des gens dignes c'est des responsables nous savons que ñu ñu mm. mais c'est pas tout le monde parce que nous, sommes defee tey politique au Sénégal c'est archaïque Madame, Madame, c'est révolu waratul nekkul war am mm. ñun changer méthode de politique politique soo gisee nit ñi moy fexé dëkk bi li fi nekk problème ñu ut nañ ko saafara fexé dëkk bi ñu am ay hôpital instant yow yaa ngi def sa campagne ni pour nekk maire nekk goo maire non non man nekk go maire non nekk defuma campagne xam nga tax man non xam nga tax euh, soxna si defuma campagne non si parce que yaa ngi présenté sa programme non programme non non non non xam nga tax man duma présenter présenté programme euh. parce que man bama ma nekk sama ba légui mm, yaa ngi présenté programme ci liggéey laa a ci liggéey nga ba a waaw maanaam tey xam nga man samay wax euh. dafa and ak ay acte ak jëf

pour mën a jot mairie bi. waaw non ah tamit da ngay nangu. da may déglu man d'habitude. Mhm. dans ma dans ma vie. Mhm. du ma sos. Mhm. dafa bokk sama ngëm-ngëm. du ma waxal nit. waxuñu la da ngay sos waaw non. waaw mais attends mais xam nga ne comme maa ngi ne. am ñu may dénoncer. xam nga nit dina dénoncer dara. teg ko ci loo xam ne du nekk firnde yu wóor. da koy def rek rien que pour. ëllëg xel créer buzz wala créer buzz man je ne fais pas ça. man lépp lu ma wax nit. dama koy vérifier à temps. seet ne deug na wala du deug su fekkee ne loo xam luy do askan bi da man dama paré joxé sama bopp loolu pour mu xeexoo. ok dénonciation yi ngay wax. du man mako ko jékki rek wax ko. muy la situation du centre de santé de Khadim Rassoul de Diamaguène Sicap Mbao dafa am lu fa xew. dafa am lu ñuy wax ni comité de santé manam hôpital ni ko tenké état bi dafa permettre population bi les ASC bokku ci li nga xam moy mooy gestion comité gestion.

xaalis bi fii la jaar maanaam compte A bi ak compte B bi nga xam ne mooy garab yi bu ci nekk. Mhm. ñu ne nañ ko nañ wax ne kat fii la dugg ak fii la jaar. Mhm. lii la dugal ci ñeenti at yi ci xaalis. Mhm. fii lañ ko dugal tabax nañ ci lii def nañ ci lii def nañ ci laa. léegi yéen bi ngeen defee loolu noonu yëpp ngeen gis. ne loolu bi mu amee uh-huh. le trésorier. du comité de santé. devant l'autorité administrative mooy le sous-préfet. de l'arrondissement de Thiaroye. ak le médecin chef du district. dañu toog.

ci biir loolu ngeen ko seq yéen ñeen war ñu leeral ñun population bi yéen ñeen dem seen biir di tamante ku ci nekk ne kat am na lu manqué. Mm. ñun am nañu droit. dem caytu ji maanaam ne leen. Mm. mbir mi dañ ko bëgg a leeral. Mm. am nañu droit ne.

su ma la su ma la yónnee wala ma dénk la wala ma yónni leen yéen ñaar. yéen benn wax nit ngeen. non non déedéet sukkandikul ci benn wax parce que ki wax il n'est pas elle n'est pas n'importe qui. Mm. xam nga ku wax. Mm. nekkul koo xam ne benn bojo bojo moo wax. Mm. elle est le responsable du centre de santé. du centre de santé mooy le médecin chef. Mm-hmm. ki wax nekkul benn n'importe qui moo taxaw wax. Mm-hmm. kon ka wax dañ ko war a déglu. Mm-hmm. te su waxee. jàpp nañ ne la mu wax. am na fu mu ko teg.

comité de santé depuis six mois il nous avons ngi def chèque blanc mm-hmm. le sous-préfet si prérogatif, am mm-hmm. a dissoudre li nga le comité de santé mm-hmm. waaye waay yaa xay di soxna si su fekkoon problème amul su détournement amul Wa comité de santé dissoudre dissoudre ko ba comité ad hoc Mm-hmm. comité ad hoc bobu ñu là moy né. ah amna lu xew. amna lu ñu lu problème bobu ah. ko régler j'assume. Mm-hmm. nañu taxawal comité ad hoc. Mm-hmm. en attendant. ñu régler problème régler le problème. yeen ngeen daal def lancement. ngeen def procédure judiciaire non procédure judiciaire avant. le le bi comité ad hoc bi commencé dox. médecin chef bi mom le sous-préfet du, de, l'arrondissement, mhm. vers son supérieur, le, préfet du département de Pékin. Mhm. Le préfet du département de Pékin mhm. convoquait une réunion d'urgence, une convocation hors du jour, clarification de la situation du centre de santé Khadim Rassoul. clarification moy la nuit, la ñuy wax clarification. waaw maanaam ñëw leen ñu leeral. situation bi nga xam xew ci mais à notre grande surprise. Hum. bi ñu ñun dans la salle. le préfet. man je le dis à au revoir et man maa jël samay responsabilité ku bëgg a wax préfet da lay wax ne la. bi ñu a ci wàllu xaalis. Mhm. léegi maintenant nañ wax ci wàllu comité ad bi. Mhm. ndax comité ad bi moo ñu moo moo ñu amal solo li passé passé na. ok ci biir loolu. ok il a ne monsieur le sous-préfet. Mhm. man pas d' accord. yow mënoo convoqué nit ñi ne ci lii lañ war a wax. ñu ñëw ba ci loolu le médecin chef ne. man bëgguma su ma fi jógee ñu yàq sama der ne maa def li maa def laa. na mbiri leer. na mbiri leer. kee jékki-jékki na ko man aussi lekkuma ci xaalis bi tënu ma. kay jékki-jékki ne way yow sànq daal ñoom ñu ngi ñu ngi koy jiñal dañu ok waaw mais mais yow sama li ngay dugg dafa bari yow coow ci li ngay dugg dafa bari ba tey gi samay enquête te suuf yi sax suuf si waaw suuf si ñuy joxe ci ci commune bi lu ma ñor yaa ngi ciy dugg yow yow yaa ngi lijjanti suuf si mhm. dañ laa mayul ci terrain yi wala dañoo mayul sa mbokk wala lan la waaw da nga may man mhm. su ma soxla woon terrain mhm. kon heure bi ay terrain laay yor man damaa doylu ku xam ku nekk xam ne man nitu gëm ngëm la. yaa ngi dawal oto. non man aw oto oto. Eh, am nga kër. aw ma kër. ah. oui moo tax ngay kaas moo tax moo kaas moo tax moo tax ngay kaas non non dama ngay déglu xam nga lu tax ma ne la. Mm-hmm. xam nga àdduna man soxlawu man nit ñi ne man maay diw ku ci nekk da am sa trajectoire am ñoo gëm. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo gëm luxe. Mm-hmm. gëm ne ci man je préfère. ma bañ a bàyyi kër bu may génne ci àdduna mhm. su ma ko su ma doole bu ma ko mayul mhm. mais moo ma gënal sàcc alalu askan bi di ci tabax ay kër di ci dawal suuf si kon dañ koy sàcc dama ne dama ne xoolal li ma yor ay preuve la mhm. bi la le maire de Diamaguène Sicap Mbao non may ma am na fi problème suuf ba dem ci ci wàllu yoon moom ak équipe pour wax la dëgg même APIX suuf si nga xam ne da ko fi bàyyi. mu nekk moomeelu askan bi. Mm-hmm. ñu ngi koy caxat caxati di jaar ci suuf di ko jaay ay nit. Mm-hmm. ci loo xam ne c'est illégal. yaa ngi def ay grandes révélations moom laa la xam nga lu tax ma wax mm-hmm. man du ma como. te du ma waxantu. mais kayit gi doo ko joxe. dama ne la koy téye noonu la lii c'est mhm. yoo xam ne même bi nga xam ne ñoom dañ leen toppoon ci wàllu suuf bañ dem tribunal. Mhm. kayit yi man maa ngi. foo jëlee kayit gi ah? non man du ma nekk ci ay parce que ah, mais mais foo jëlee kayit gi non dama la ba mais boo dem boo leen attaqué boo taxawee ci kanamu yoon dinañ la foo jëlee kayit gi. non non non non loolu amul solo xam nga lu am solo. Ah. mooy que lépp looy wax. na nga ko teg ci firnde bu parce que man gor la te xamna dañuy wax né la noblesse est lourde à porter. Mm-hmm. elle désigne du doigt. Mm-hmm. ce que doit être le bonheur et en trace les limites. Mm-hmm. man dama gëm né nongul na gëm gëm na né rusna naa ñu laaj ma ya wax li ma taxaw wax né waxuma ko man yóbbu nañ ma tribunal. Mm-hmm. ngir askan bi. Mm-hmm. en 2010 le 2 décembre 2010. Mm-hmm. ay sénateurs ay députés. porte ma plainte. ma dem justice gagné len ci wàllu walu wàllu moto. da ngay wacc yoon bi nak da ngay bëgg jël maire bi ak fitna da ngay wacc yoon bi lolu lolu loolu moo la sonal xam nga lu tax ñu fitna du ñak euh, bu fekkee dañu nekk ak ño xamné ay say say lañ. ñoo xamné ne dañ fi nekk di nax askan bi. bu laajee fitna fitna ba day taxaw xam nga lu tax ma du fitna amul. su fitna amoon dañuy jël ay jaas mm-hmm. mais ñun lépp lu ñuy def ci yoon lañ koy. mais ni ngay sulee mbóot dafa gara ah non déedéet xamul tax da tax man maa def mm-hmm. askan bee mm-hmm. man maa nekk la voix des sans voix. man maa nekk la voix de Diamaguène Sicap Mbao kon tey lépp lu ma gis. politicien yëpp waaw non non la voix des sans voix wax. ma ne non non attends uyu ma xam nga lu tax. minutes avec 20 minutes yi jeex na de. non déggoo li ma ne si dama ne la. 20 la. man Abdou Samad. lu ne fànn kenn du ko jeex. man dama marqué sama empreinte dans la commune de Diamaguène mhm. et une fois yalla def ma nek maire mhm. buñ ñu doon wax ballon d'or ci maire mhm. man damay am ballon d'or man may nek maire maire dans dans le Sénégal parce que doomu rew mi nga doomu natifu Sicap Mbao parce que non déedéet nekk natifu Sicap Mbao rek taxul na mel ni ma mel ah. taguma suma bok man dama dama am ay preuve yu ma wane gis nga limay def li ngay gis si 160 jeunes la jël yóbbu leen UAM e. ñu former len tàggat leen ci bokk jox leen ay diplôme jox leen ay diplôme mm-hmm. ba ñenn ñu mën a am ëllëg am xëy mm-hmm. jël ay ndaw mm-hmm. yóbbu leen autoroute à péage ba ñu ngi liggéey yaa ngi campagne ba tey boo demee ci pont yi boo demee ci pont yi mbokk man maa ko fa def si samay dugu-dugu man yow yaay attaqué maire bi parce que yow yaay def li nga xam doo ko tàggu non ñun da nga war di ko tàggu mooy ki ñu jox dëkk bi maanaam avant muy jot dëkk bi

ne le pouvoir m'appartient je le donne à qui je veux mais vous faites que vous ko ci vous hmm. applaudir hmm. la hmm. mais vous vous que vous un maire vous benn approche allez vous bi la vous la allez dëkk bi vous koy vous allez ko vous préoccupation parce que

man lan qui ma tax tax qui mm-hmm. askan bi mm-hmm. man suma suis un taxone a mm-hmm. kon ma ngi ci yeneeni bagage yeneeni mbir mais man je suis un homme bo je man mané yalla moma moo man ma nek def je ñuy wax don de soi jël sama aduna jébbal ko askan bi Je suis un homme yi pour ëllëg ma am li nga xam moy pay suñu borom. ok alal yalla mo koy joxe. Uh-huh. man tay uyu ma lay fait ne man je suis un homme courageux. man je suis un handicapé. Mm-hmm. mais les gens me respectent mm-hmm. parce que je me bats pour le droit à l'identité du Je suis kenn man amul kilifa buy dox Sénégal te nekk sama xarit mm-hmm. li réaliser ci dëkk bi lu ko c'est si je suñu borom courage ak bëgg passe et pas-pas bëgg dëkk bi moo tax ma di ko def. monsieur Diouf argument yi nga ñuy jox macha allah dafa nekk argument yoo xam ne soxla nañ ko. Mm. mën nañoo def première partie 20 minutes avec defal la deuxième partie. dañ lay ñaan rek nga tàggoog téléspectateurs yi lay seetaan. comme doyal na. doyal na pour l' instant après ñu defaat waaw ñu defaat deuxième. voilà dama li ma la bëgg a wax. Mm-hmm. li ma la wax ak moom li ko des moo ëpp. parce que 20 mm-hmm. minutes dafa tuuti. Mm-hmm. tey bi may wax ak yow ci ndox ma laa jógee. Mhm. dëkk bi gis nga ni mu lóoree. Mhm. tey boo dégloo. loolu dañ koy dugal ci deuxième partie bi dem jëlal la image moom laa lay wax waneel la say réalisation mais lay ñaan nga tàggoo ko téléspectateurs yi lay seetaan merci beaucoup. Mhm. yow xam nga da nga xaw a pànk. mais nag amul problème. laay 20 minutes avec moom ku fi ñëw da ngay da ngay yaa ngi ñàkk tooy xet. waaw voilà xamul dama ñàkk tooy xet parce que je parle avec le cœur. man dama bëgg jàmbagan si kàmbaaw mhm. ba luñ ma oo ci njëriñu jàmbagan si kàmbaaw mhm. damay bàyyi sama ndëpp mhm. mais li ci gën a neex fii ma koy defee doomu jàmbagan si kàmbaaw kër gi moo ko moom jël ay ndaw waaw doomu jàmbagan si kàmbaaw très bien ñëw wane ne man dama am lu ma gëm dañoo bokk ci mbir mi créé lu mel nii man lu ma jàppoon dama koy bàyyi te di leen encourager de plus. Mm-hmm. di leen wax ne am nañ suma soutien. Mm-hmm. muy moral. Mm-hmm. muy sama ñaan ak lu mun ci doon. pour jàppale leen. ndax ki ko ti yore. homme de valeur la. te nit valeur dafa am solo ci moom. te incarné bi muy incarné valeur. man loolu laa gëm. man dama am ay valeurs cardinales et fondamentales. loolu moo war nag may góorgóorlu aussi. gis ne ku am. di encouragé PDG bi di taxaw PDG bi El Hadj Lo mhm. ci taxawaayam. Mhm. liggéey bi maanaam professionnalisme bi. Mhm. macha allah li ñuy ñaan kay yal na leen yàlla defal Amen. lii ñaan. amiin yàlla ñu dem. ba ñu dégg leen ci aduna wërngal këpp. Amen, amen. vous êtes sur la bonne voie. Amen. et bonne continuation. merci beaucoup merci beaucoup. ok ma lay remercier bu baax baax monsieur Sabar Diouf Amna fi invité bu nekk gis naa fi Boubacar Kébé Gisu fi Ibrahima Traoré mais man tey laa jombi mais nak 20 minutes avec ku fi ñew di nga wax ba ñak tooy xam. Ah. ma leen di gëreum nak bu baax baax yeen ñi safo mm. Elvision Media Média. Mm. ak amee internet yi nga xam ne à chaque fois dañuy toog di xaar li nga xam ne 20 minutes avec. Mm. di wax nak ñi japp ci émission bi yépp équipe technique Elvision Media Média Balla